asalaamaaleykum sama gaa yi c'est Omzo TV officiel technologien wolof nuyu naa leen ziar leen di leen jaajëfal bu baax a baax di wax na rek bii day c'est la première fois yaa ngi doog a tombé suñu chaîne bi nga abonné da nga bës cloche notification bi ndax nga mën di recevoir suñu yeneen vidéo tey nag euh, dañu ñëw di tontu benn commentaire rek suñu vidéo yi si suñu chaîne bi euh, maanaam ñi xamante ne si ne ñoo yor techno te zaaru zëy yi nii di leen. arrivé lu bëree bëri maanaam jeu yi yaa ngi gis xam nga ne lii képp ku yor techno rek di nga ko si gis nag. léegi nag ñun defoon nañ si benn vidéo mais video boobu mën naa ne am na lu tolloog huit mois suñu scène bi euh, mais euh, toujours euh, lu si mel ne techno yi dañuy mettre en jour lu bëri te bu ñu defee mettre en jour système bi day sensé tamit en plus bu système bi sensé tamit même jeu yi tamit day ñëwaale ba tey. mais euh, vidéo bi nu si defoon maanaam euh, application bi nu waxoon na moom ngay désinstallé mu àndaale ak yi daal di dañ application boobu euh, xam naa ne instant bi ni téléphone yu bëri bu nekkee mise à jour dañuy sensé wu ne application bi day sensé wu na système bi lay àndaale mu sensé wu day ñëwaat àndaale beneen application beneen application boobu nag lan leen di wat naka nga koy désinstallé ba GIE yëpp du si nekkati day daal di dañ quoi boo xam naa ne képp ku yor techno rek da nga gis comme lii ma si gis. zëy yi daf leen di déranger lu bëree bëri boo xoolee commentaire bi sax ah, moo nekk nii ah, commentaire bi nekk nii mais nee na du ko gis si eh, téléphone am quoi maanaam application bii nii mais vidéo bi dafa xaw a yàgg nag am na huit mois suñu seen bi te actuellement ni bi dee xam naan sa téléphone dafa nekk mise jour application bi day changé du nekk di comme boobu nga ko doon dindee léegi nag danañ ñëw wala nag nga koy dindee boo xoolee dugg sa téléphone nii bi dee si application bii ngay ñëw mu nekk le him thème bii mu nekk hi thème bii nii si ngay ñëw bii nii ngay dindi nag ndax zëy yi mën a àndaal ak moom dem léegi danga nga siy appuyé nii boo si appuyé nga ñëw fii mu defal information nga cliqué information nga patiente mu ñëw boo xoolee toujours les annonces lay def muy EOS bi mooy Android rek US 15 yooyu yëpp am na si léegi ma ni la fi investir application da ngay ñëw fii si trois tomes yi toujours rek moo ni la fii nga def d'installer les mettre en jour maanaam toujours bu mettre en jour rek toujours application bi mën nañ changé boo ko deful attention rek dootoo ko xamati boo xool mi remplacer la cette application pour la version désigne toutes les données sont supprimées bi boo ko déinstallé GIE yooyu yëpp li si daan nekk di la dénoncer day dañaale léegi ñu def ok mu déinstallé léegi dañuy def partie ci digg bi ñu génn boo génnee nii da ngay gis ni téléphone bi commencé waat di chargé wu Lenovo TOS maam day euh, désinstallé waat bureau bi daal maanaam bu ko désinstallé waatee nag zo yooyu yëpp du si nekk ti nag léegi dañuy patienté bàyyi mu ñëw tuuti bàyyi mu ñëw mu chargé wu bureau bi voilà léegi dañ na nii ñu xool actuellement nii benn heure nekkutu si quoi te boo daan xëcc nii fii si kaw rek yéen ñi yor techno yéen ñëpp xam ngeen si boo ko défilé nii tuuti xëcc rek ngay daal di gis ne day daal di andi ay annonce ay jeux yu bëree bëri te daf lay déranger lu bëree bëri tamit. voilà j'espère que ne gars yi astuce bi leer na di wax na rek comme d'habitude rek bi tey yaa ngi doog a tombé si chaîne bi nga siy doog a gis ñu ngi lay invité nga abonné te nga bës cloche notification bi ndax ngay mën di recevoir yeneen i vidéo di rek daje à la prochaine vidéo incha allah.